mandarga màndargay yowmal qiyaam mooy màndarga yi nga xamante ni moom mooy jiitu bisu taxawaay ba di teetale tamit ni jege na àdduna léegi mu tukki borom xam-xam la xaaj ko ci ñaar yu ndaw ak yu mag yu ndaw yi nag li ci gën a bëre jàll na ba pare am na yoo xamante ne moom ñu ngi fi ba léegi di bamtu di dem di dikk waaye tamit am na ci yoo xamante ne moom ba léegi tàbbeegul te loolu lu néew la waaye nag yépp dana tàbbi ngir ki ko xibaare mooy ku ñuy dëggal ku dëggu ki yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yu mag yi nag yooyu ay mbir yu rëy la yi nga xamante ne dafay wane léegi mbir mi moom jege na àdduna léegi mu daal di tukki màndarga yowmal qiyaam yu ndaw yi bëri na yëpp dikk na ci ahadis yi bokk na ci yónni bi ñu yónni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci faatoom bokk na ci ubbi bu ñuy ubbi beytul maqdis ak feebar pest ba nga xamante ne am fële ci Palestine alal bu bëre ba sarax dootuñu gisati kuñ koy defal fitna yu bëri dina ñëw lu mel ni bokk na ci rey bu ñuy rey Ousmane Ibn Affan ak génn kuréel boobu ñu tuddee la xawaarij ak woote woo ni alxuraan moom mindaafoon la dana am tamit ñu ñëw di woote woo yonent ñu bëri lool ku mel ni Musaym al ak ñeneen ñu dul moom euh, woor tamit kaaraange tamit dana néew ba nit ñi ñu ñuy jox ngir ñu teel leen mbir di ko doxal ñu ñooñu nekk nekkati ñu wóor xam-xam nañ ko fi jëlee réer daal di wasaaroo loolu nag mu amee ci borom xam-xam yi daal di faatu njaaroo dana wasaaroo ak naan sàngara ak instrument de musique eh, ña doon sàmm gàtt yi ñàkkoon dinañ mujj nekk ñu woomal dëkk ci taax yi eh, jigéen dana mujj nekk sangu yaayam ci loolu lu koy wane mooy dëngee bi mu koy dëngee ba mel ni moom mooy kilifa ray dana bëre tremblement de terre dana bëre waaye tamit tuumalante dana bëre jigéen yi nga xamante ni du ñu yaram yi dinañ bëre waaye tamit aji gëm moom lépp lu mu gént dafay daal di gis loolu daal di leer nañ euh, bëre seede mboosoor ak nëbb seede dëgg jigéen dana bëre waaye tamit euh, bàyyi ma yenn ci ay bàyyi ma wala yenn ci ay euh, yoo xamante ne amul xel ay jamaadaat dinañ mujj di wax ak doomu aadama yi Palestine tamit dinañ ko di ubbi bokk na ci màndarga yowmal xiyaam nag yi nga xamante ne moom yooyu moom yu yu rëy la yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam di koy xamal ci xadiisu xuseyfa ibnu sayd nii e, bokk na ci màndarga yi ab saxaar bi nga xamante ne dina ñëw muur àdduna ki ñu tuddee almasih ad dajjal dana génn moom it bokk na ci ab dàbba bàyyi ma boo xamante ne dana génn ëllëg yomal xiyam nit ñi naaj bi daal di génnee sow yonteel isa alayhi salaam dana wàccaat ñoo ñu tuddee yaajuuj ak maajuuj nekk ay doomu aadama dina ñëw dana am tamit ñetti tremblement de terre yi nga xamante ne dana am ci penk sow ak ci réewu arab yi waaye tamit euh, dana am sawara ba nga xamante dana génn di pang nit ñi ci béréb bi nga xamante ne foofu lañ di dajalee mandarga yi nag ñoom ñaar ñii dañuy tegalantoo mooy bu ci dikk rek beneen bi dafay daal di ñëw ci gaawam ci gànnaawam ci lu gaaw amul nag bind bu leer buy ñëw di wax ni ñoom nii lañ tegalantoo du lu dafa fekk ni yenn ci ay ahadis niñ ciy des say tukkandiku ci ni ñuy tegalantoo kon wallahu aalam